nee nañ tous les moutons se promènent à Abidjan mais ils n'ont le même prix bokkuñu de moo tax ma bëgg leen wax fii dalal seen xel li leen jaraloon loolu at genn wàll ci gannaaw boo moytul lacrymogène yaa ngi doon tàkk fii oto alkaat yee ma gis muy tàkk ñi ngi doon jëflante ak yéen loolu mu leen ko jaraloon àdduna du dof àdduna du dox ba ngeen ne président Bassirou Diomaye Faye mi ñu fal Ousmane Sonko mi ne premier ministre ak assemblée nationale bi ngeen ñuy jox majorité décevoir nañ ñu wala trahir nañu loolu du musa am bés bu ne bu ñu jógee ñun di xëy di dem suñuy bureau man bu may dox bu fekkee sama oto dem sama bureau bu ma xoolee ci biir oto bi di xool Sénégal. lenn rek laay xalaat man lan laay layoog yàlla ëllëg ci sama digganteeg ñii loolu rek laay xalaat. saa su ma jógee. saa su ma jógee di jóg sama bureau. dama naan xale yi gëmoon projet bi ak yeneen ak yeneen wala ñoo gën a lu ko may rek nañu waay ak ñoom moo tax politiciens yi ñu jëflante ñun ñoom xamuñu la xew te yàlla nag yéene lay fay lii ñu yàlla bis bu jógee suñu xol rek bu ma ñëwoon fii du fekk ñetti nit loolu moo am ku ñu jox réew rek dafa fekk ci jamono jooju am na loo xool ak Sénégal parce que nag am nañ seen fulla moo tax nag mars 2024 le 24 mars joué ngeen premier mi bi jox ngeen ñu pouvoir exécutif na tuuti rek ma yeggali parce que guddi na a dellu fanaani Kaolack te délégation bi yëpp de la république jox ko 54 pour cent waaye benn cër ci pouvoir bi rek ngeen ko jox yéen ñëpp lu sa jàng gàtt gàtt xam nga ni réew dañ ko tënk ci ay cër ñu tuddee leen ay pouvoir bi nga xam ne mooy président de la république ak premier ak gouvernement ak administration loolu pouvoir exécutif la benn la ngeen ko jox benn assemblée nationale moom beneen pouvoir la mooy pouvoir législatif ca ngay voté loi ca ngay voté budget ca ngay contrôler action gouvernementale waaye ca ngay dégloo lan mooy jàmbatu askan wi nga ay seer ko saafara kon su ngeen joxee président Diomaye mooy li ngeen ko joxoon nanguwaat ngeen est-ce que waa def loolu est-ce que liñ leen war a ci juróom benn weer yi dal na seen xel kon deuxième tour la ñuy xaar ba xam ku ñuy soutenir deuxième tour bi nag jot na mooy ñun dañoo bëgg deuxième tour bi gën saa gàtt ñu am 70 pour cent à l'échelle nationale. mbokki Kara temps bi gàtt pour ma développer yu bëri. wax naa lañ cey def ci Foundiougne. ci diir bu gàtt si diir bu gàtt du bu ngeen génn teeru dinañ ko allah wax ngeen maase wu ci dañ leen présenté programme bu ñu Sénégal vision 2050. deux mille vingt neuf war a ñëw taxawaat sa kanam. ak ñoom seen. loolu lépp ngi ci programme bi. jigéen yor nañu seen carte waaye benn benn yi ko bi am na ni élection bi présidentielle déedéet bii jàpp naa ni solo kon dañu bëgg taux participation bi ëpp bi bi amoon ci présidentielle kon na ngeen génn dem vote yi massivement. à 7 heures du matin dañu ak ay jeunes bu bi la ca nag la ca nag mooy sud te fi ngeen ma teg kenn essayé génn ci réew mi ay ndaw ngeen tolloo bu leen fere ndigal yi nga xam ne moom la ñuy roy tey kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah merci.